mafatihal bishri wal amni wal fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna wax Mbàkke Kajoor wax barab bi nga xamante ne Maamoor Anta fa la nekkoon di jàngale Serigne Touba fa la fa nekkoon di jàng di jàngale itam ku wax tamit Mbàkke Kajoor wax daje bi nga xamante ne moom la def mook ku wax tamit Mbàkke Kajoor wax tamit jébbalu bi nga xamante ni maam Cheikh Ibrahima Fall fa la def ci ngi gis Bamba waaw ci toogaayam nag sëñ Sidi Moxtaar yal na yàlla yokki leeram ci xalaatam bu rafet ak vision am bu sell gi mu am mu ne jot na kat murit bi nga xamante ne tey bëgg naa xam fan la murit fan la yoon gi sote soxeekoo mu mun koo yeesalaat comme sëriñ bi ba mu jógee ngir yeesalaat euh, lislaam daanaka sëriñ bi fa la fa la amee idée boobu noonu ba mu tënk ko si ñeent pàcc pàcc bu ci njëkk mooy euh, lieu lieu lieu de pèlerinage bi nga xamante mooy ngi gis Bamba lu tax lu tax mu mu jiitu ndax boo xoolee ci culture murit dafa am li nga xamante ne mooy le cultuel et le culturel te yaakaar naa ziar moom dafa bokk ci yoon wi maam dem fépp fi nga xamante ni sëñ bi am na benn lien ak ku tedd ki nga fay dem di fa barkeeloo doon dafa doon benn aspect bu important ci yoon wi beneen bi muy résidence maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xamante ni ci dañ ko dañ ko rëdd ci benn Euh, si si benn hectare mu constitué wu bara bara euh, këru xalif bi euh, maison d'accueil bi ak yenn barab yi nga xamante ni fa la cheikh yi ak kilifa yi di daal. troisième bi nag mooy Daara Mamour Anta ndax ku xool dañu tuddee ko Daara Mamour Anta Sali ndax ci taarix bi dañu dañoo wax ni Mamour Anta dafa doon yënguti ci njàngu njàng ak njàngale. moo tax it troisième troisième point ci projet bi dérogé wul ci règle boobu ndax. dafa jëm ci lépp luy jàngale ak ak ak ak lépp luy formation professionnelle pour la réinsertion de des jeunes aussi des femmes parce que comme ni ko gisee ci ci bi am na ay femmes yi nga ay ay soxna yi nga xamante ni dañoo yëngu ci ci wàllu tissage ci wàllu euh, ñaw ñenn ñi nga xamante ne ay góor yàlla lañ dañuy dañuy yëngu ci wàllu menuiserie ak yu demee noonu waaye itam am na ñi nga xamante dañ fay jàng nasaraan di fa jàng alxuraan di fa jàng anglais di fa jàng leneen ak leneen li xamante tey bu di permettre tey bu ñu génnee tey mën a insérer wu facilement ci ci ci société bi ci ak dans le milieu professionnel beneen bi mooy le le quatrième point bi nga xamante ne dafa jëm ci centre de formation en agroécologie ku wax agro écologie nag wax bay waaye bay bi nga xamante ne bay bu bu gën a bu gën a ci ci ci bu gën a rafet anam maa mooy bay sans produit chimique sans tooke ndax boo xoolee produit chimique comme ñoom soxna jaaro ni ñu ko doon waxee sànq rek daanaka moo ñuy jiwal ay problèmes yu bëri ci wàllu wérgu comme ay hypertension artérielle ay AVC ak yu demee noonu léegi sëriñ sëriñ bi ci xalaatam gu sell euh, xalaat ni kat jot nañu delluwaat ci suñuy jamono maam ndax boo xoolee suñuy maam daan nañu dund ay téeméeri at te duñ sax xalaat ni dañ dañuy dem duñ sax tala garab ndax lu ñu daan dundee moo sell sell bi nga xamante ni tey da leen permettre ñu amee am benn longévité bu demee noonu waaw ci tënk nag loolu moo nekkoon projet bi nga xamante ni sëñ Sidi Mokhtar tënkoon na ko teg ko ci loxo xalif général des Baye Fall muy sëñ Cheikh Jëmb Fall sëñ Cheikh Jëmb Fall teg ko rafaatale ko Serigne Babacar Mbow mu ndeem bi nga xam ne mooy la chargé de mission mooy koy piloté daanaka liggéey bi moom dox na ba résidence euh, moselle bi bi nga xamante ni mooy ngi gis Bamba fu mu toll nii euh, coulage ga des waaw coulage ga des semaine bi passé ñu ngi doon nekk di di di jiw euh, di jiw ay ay tàndarma ci ci wetu barab bi ngir mën a gën a mën a participer aussi à à du désert aussi à déforestation di tubaat bu baax ci kàddu yi jaajëf jërëjëf sëñ Badji euh, sant nañ bu baax euh, projet bi day firndeel rek ni Cheikh Ibrahima Serigne Touba euh, seen seen seenuk ànd ànduk ànduk